بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ginnaaw bu ñu sante sunu borom julli salmal ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonentu boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain fàttali bi mi ngi jëm ci kayfa taqra'u abwaab as-samaa naka la aji gëm yàlla ji mën a fexe ba fëgg bunti asamaan ku gëm yàlla naka la mën a def ba fëgg bunti asamaan te loolu moom mooy ñaan jàpp naa ni ñun ñëpp fas nañ ni dañoo soxlaal suñu borom ki la raw ki la raw ci ngëm yàlla ba nga di ko ñee nga xam ni yaa ngi ñaan su ma ba sañoon de mel ni diw ndax diw mooma kat gis naa ni ku jub la ku baax la ku sax ci njub kala raw kooka sax dafay soxlaal yàlla subhaanahu wa taala waxuma la ak yow soxlaal ci lépp ndax sunu borom mu ni yaa ayuha nnaasu antumu alfuqaraau ila allah yéen nit ñi yéen ñëpp da ngeen a ñàkk da ngeen a tële soxlaal aajowool seen borom doomu aadama nag ci dund gii ñuy dund te bépp doomu aadama nag laa wax ci kaw suuf mënul ñàkk moos ci ay dundam muy jànkonteeg ay jafe-jafe ak i mettit ak i naqar ki gëm yàlla moom bu jafe-jafe yi ñëwee ak mettit yi ak naqar yi xelam dafay dellu ci boroomam mi ko sàkk mu xam ni dara mënti tege ci kawam lu dul sunu borom moo ko ko teg te it dara mënta teggeeku lu dul sunu borom mooy ki ko teggi kenn mënul ci li ma man li ma dal dara lu dul sunu boroom duma ko jiiñ kenn damay xam ne dogalub sunu boroom su ko defee loola sabab lay doon ci mu nekk jaamu yàlla waaye sunu boroom nangul la ko te it xetti li la ba mën laa dindi ci jafe-jafe yooyu nga nekk yëg gi nit ki di yëg ni jafe-jafe yi mu nekk yàlla rek moo ko ca mën a teggi loola jaamu yàlla gu mag la kon fàttali bii di kayfa taqra'u abwaab as-samaa mooy naka ngay def ba boo fëggee buntu asamaan ñu man mën laa ubbil ndax xam ngeen ni mi ngi mel ni buntu néeg nit ki am aajo ca borom dafay fëgg ñu tijjil ko mu wax aajoom sunu borom moom saa bu la tijjilee dina faj sa aajo waaye jafe-jafe ba mooy ndax dina la tijjilam ngir foofu la problème ba nekk suñu borom moom boo fëggee buntam bu la tijjilee rek sa aajo faju waaye problème bi mooy ndax moom boo ko fëggee dana la tijjil ndax xam ngeen ne day nit am na waxtu yoo xam ne day tëj ay buntam am waxtu yoo xam mën nga kaa fëgg du la wuyu waaye sunu borom moom guddi ak bëccëg 24 heures buntam yaa ngi tijjeeku ku ko ñaan daf lay may ku xëttali ko ci moom mu xëttali la waaye nag problème bi mooy balaa xëttali di am wala nangu di am day fekk nga fëgg teyit nit gil la kon ñu xam ni lépp loo xam ne dal na ci jullit bi ci ay xeeti jafe-jafe aw yoon a ngi woo xam ni yoon la wu gaaw pour mu teggeeku waaye ay caabee ngi yoo xam ni mën nga caa jaare fëgg teyit tijjil sa bopp ñu tijjil la bokk na ci mbir yi nga xam ni mën naa sabab nit ki di fëgg ñu tijjil ko mooy mu fexe ba ngëm yàllaam wér benn xeeti njaxas du ca am waaye yàlla rek moo koy saf moom rek mooy nekk ci xolam place bi sunu borom am ci xolam leneen du ko am ca xolam te it du yam ca nag ngëm rek di xola takku waaye day fexe nag toftal ci ay jaamu yàlla yoo xam ni cër yee koy def yu wér yoo xam ni bu ñu nattee ngëm ga teg ko ci balance natt jëf ya teg ko ci balance dañuy gis ni wax dëgg yàlla nag li xol li cër yi wane ak li xol bi fas benn lañ ñoo toll la ñaareel mooy fexe wéetal yàlla kennal ko moom kese ba doo ko bokkaale ak lenn waxuma laa kenn moom ngay gëm moom ngay yaakaar moom ngay dimbanikoo moom ngay xittilikoo moom ngay muslu moom ngay ñaan yooyu yépp nga fexe ba di ko defal yàlla kese ñetteel bi mooy fexe ba ragal yàlla subhanahu wa taala ci lépp lu di santaane nga def ca la nga man lépp lu di tere nga bàyyi lépp ñeenteel bi foo toll rek ngay rafet njort ci sa boroom xam ni nit ñi luñ la yërëm yërëm yàlla moo la gën a yërëm nit ñi lu ñu baax baax ci yow sa jëkkër sa jabar sa baay sa yaay sa mag sa rakk sa xarit ñoom ñépp yëgal ni luñ la yërëm yërëm yàlla mi la sàkk te ñooñu kenn fekkewu ko ca jàppal ni yàlla moomu moo la gën a yërëm juróomeel bi mooy jamono bi jafe-jafe amut dara xewut nga fexe di góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ak di ñaan sa borom loola sabab lay doon ci bu jafe-jafe amee kat boo ñaanee ñu nangu la waaye bàyyi ba jafe-jafe ñëw ngay jéem a fëgg ay buntu kenn du la xàmmee ndax mosoo faa fëgg juróom-benneel mooy di bari di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom lu bari juróom-ñaareel bi mooy di faral di muñ bañ lu ñëw rek nga jàpp ni nekk nit koo xam ne doo muñ dara doo bàyyi dara mu jàll lu ñëw rek nga jàpp ni warta dal ci sa kaw waaye ngay bari looy julli ndax ñaara ngoog yu mën a dimbali jullit juróom-ñetteel bi mooy fexe nag di xool histoire yonent yàlla yi fan jaaroon ah nga def leen référence xam ni ñoom ñoo la gën fuuf gën ñi nga yaakaar ni ñoo gën te ñoom natt yu baree bare bare daloon na ci seen kaw juróom-ñeenteel bi mooy di fàttaliku dee xam ni àddina bi daa gàtt lool diir bu gàtt nga fiy am ñu takkal ak perkaal yóbbu fàtte say mbir dootoo dellu siwaat fukkeel bi mooy ngay bari di jéggalul sa borom yàlla di tuub jëm ci moom fukkeel bi ak benn ngay tàllal say loxo di ñaan ñaan gu ànd ak di toroxlu fukkeel bi ak ñaar booy ñaan nag nga seet jaamu yàlla yoo xam ni yii kat jàmbaar nga ca nga ñaan sunu borom sukkandiku ca loola lii de bi ma koy def yow sunu borom yow rek yaa taxoon may sàkku nga xeet li ma sunu waxtu mayee yooyu noonu ma tudd mënees na koo faram fàcce ànd ak ñu xam ni jafe-jafe day dafa metti saa bu wàccee ci ku gëm yàlla àddina bi day dal di lëndëm këruus ci kanamam suuf si li muy yaatu yaatu xat ci kanamam bal sax léeg-léeg nga mere ba mere ku la deful dara ndax jafe-jafe yi ngay dund waaye nit ñi nag dañoo wuute ci nan la ñuy recevoir ay jafe-jafe am na koo xam ne bu xëyee xëy jafe-jafe ni rës ci kawam dafay jànnaxe saalit jiiñ ko ay nit wala mu wax ay wax yoo xam ni du waxi ku gëm yàlla ah wala muy dem ci bu xaabay ak njabarkat ya wala sax nga gis ñoo xam bu ñu amee problème dañuy tiire seen bopp pistolet dee wala ñu naan posan dee wala nga dégg sax ñu naan lii man dee sax ama ko gënal yooyu du waxi ku gëm yàlla am na koo xam ni moom day xam ni kat lii dogalub suñ borooma te la war ci dogalub suñ borom mooy nangu fas yéene koo muñ te yenu ko moom mi ma ko teg nag moom rek moo ko mën a teggi bu ko defee ma tàllal samay loxo ca moom di ko ñaan fekk maa ngi muñ muñ ga dama ci am tiyaaba ñaan ya dama ciy am tiyaaba jàpp naa ne bu ñu ma teggilee jafe-jafe kat dana baax lool kon kon tomb ba ci njëkk bi nit ki mën a dimbanikoo ci fëgg bunti asamaan yi mooy ngëm yàlla gu wér goo xam ne dara àndu ci am njaxas te it di jëf-jëf yu baax sunu borom mu ni man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuxyiyannahu xayatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun sunu borom ni képp ku gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax moo xam góor la moo xam jigéen la na yëg ni ak dundam moom yàlla dana ko ko defaral ba mu jekk ba mu baax dund gu teey te neex tey àllaaxira bu demee sunu borom dana ko fay lu mu foogut woon ndax lu gën a rafet la mu doon jëf la ko sunu borom di fay kon kat natt bi bu dikkee ni ma koy xéewal bu dikkee ni may recevoir di sant ka kontaan nattu yi bu yegsee it damaa war a dellu ci yàlla muñ muñ gu rafet sàkku tuyaaba te xemem la ne fa sunu boroom ci ay tiyaaba ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man de yéemu naa ci mbirum ku gëm yàlla ñu ni ko alu tax mu ne ndax moom su fekkente ni seetlu nan ba seetlu dañuy seetlu lim am moom rekk ko am lu mu am moom su jafe-jafe ñëwee dafay su neex-neex ñëwee day sant yàlla te sant kooku dañ ko ciy bindal tiyaaba su jafe-jafe ñëwee dafay muñ te muñ gi dañ ko ciy bindal tiyaaba mu ne kon kay kooku lim am moom dong ko kon lu ñëw rek baax na ci moom loolu dafay waral jafe-jafe day waral yàlla faral la say bàkkaar est-ce que xam nga loolu problème yi ngay dund day tax sunu borom faral la say bàkkaar jafe-jafe yi day waral sunu borom musal la ci xeeti musiba yi nga xam ne mooy wadd ci sa kaw eh jox ma loolu su ko jafe-jafe yi dafay far say bàkkaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul luy dal ku gëm yàlla ci nattu problème jafe-jafe ñàkk xiif mar am problème ak sa jëkkër am problème ak sa jabar am problème ak sa dëkkandoo lépp luy jafe-jafe wala tiis wala loo xam ni jaxase na sa àddina ah ba ci dëkk bi nga xam da ngay dox ba mu yàgg rek benn dëkk ni cuuc sa tànk bi nee na lum ca manti doon sabab lay doon ci yàlla kafaaral la sa bàkkaar yi nga jot a def allahu akbar te xadis boobu mi ngi ci buxaari ak muslim ndekete kon ku gëm yàlla ci loolu lay yégee ni su dul woon ak nattu yi lay dal ci àddina àllaaxira boo demee li nga soxla ciy tiyaaba doo ko fa am te la ngay fay fekk ciy bàkkaar day bari lool ndax li nga def daa bari moo tax kenn ci magi salaf yi nee na su dul woon ak musiba yii di am day bu ñëwee àllaaxira danañ fa fekk ci ay bàkkaar lu ñu ëpp doole waaye lan soxla ci ay tiyaaba duñ ko fa am ñun nag sunu problème mooy problème la ñuy mettitlu neex-neex ñu kontaan ci waaye salafu saalix ñoom niñ doon kontaanee ci ay neex-neex noonu lañ doon kontaanee ci ay jafe-jafe yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ci xadis boo xam imaam Tirmisi moo ko nettali su yàlla nammee nit ki àddinaam baax alaaxiraam baax sunu borom da koy teel a sottil ay nattoom ci kaw suuf li nar a metti ci moom mu metti ci moom benn yoon alaaxira mu baax la waaye bu sunu borom nammee ci nit ki ëllëg mu sànk mu yàqule sunu borom day téye musiba yi ba àllaaxira ren mu jóorandoo ko ci kaw boppam allahu akbar loolu musiba la yëgal ni àddina bii nga nekk faw rek li lay dal ci jafe-jafe dal la ndax àddina bi sunu borom defu ko pour nga fiy noos ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci hadis boo xam ne mi ngi ci saxiix muslim àddina bi kaso la ci ku gëm yàlla àjjana la ci ku yéefar ndax kaso mooy nga bëgg a dem ñun la doo dem bëgg a wax ñu ni doo wax fii ngay toog defal lii defal la xam nga kaso ni mu tëjoo noonu la mel àddina noonu lay mel ci ndax liñ lay tere day bari liñ lay digal àjjana ci yéefar ndax xam nga yéefar lu ko neex def ndax la zanba ba'dal kufri moom lu ko neex def islam tënkatu ko su ko defee bu dee tàbbi jahannam mu jeex wa bi'sal qaraar bu ko defee kon ki gëm yàlla day fexe ba ngëm yàllaam wér te dëgër kooka nag am njàng la laaj ci buntu pas-pas di xalaat ak laaj borom xam-xam yi ak delloowaat sa xel ci suñu borom ñaareelu tam mooy fexe ba sa pas-pas wér sa pas-pas xam ni yàlla kenn la amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem jurul kenn kenn juru ko bokkut ak kenn lenn moo gën ñëpp moom ñëpp man ñëpp ëpp ñëpp doole mooy xettili mooy wërsëgal mooy dundal mooy raye lépp loo xam ni sunu boroom a ko moom rek waxuma la di ko jiiñ doomu aadama waaye sa xel sax du xalaat di ko jiiñ keneen gis nga loolu saa bu amee nag nga xam ni sa xol bi li muy xat-xat dafa yaatu ndax ngëm yàlla yàlla rek moo ca fees ah su boobaa nag am nga cër ci sunu boroom subhanahu wa taala ibn al qayyim ci benn téere bu am solo bu mu tuddee al fawaid dafay wax ni niti yàlla yi dëgg dëgg dëgg sunu borom bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe da leen cay musal ci àddina ci àllaaxira mu ni loolaa tax gis ngeen yonent yàlla yunus ba mu nekkee ci jafe-jafe yi nekk ci biiru jën bi jën bi wann ko mu ni ba mu xitali ko ci yàlla xitali bi daa gaaw yegg si gis ngeen yonent yàlla yi ñu nital ci alquran ba ñu nekkee ci jafe-jafe ñu xitali ko sunu borom daf leen a xitali waaye gis nga yéefar yi képp bañ xittilikoo sunu borom xittiliwu leen parce que dañ caa bokk mu ni moo tax gis nga firaaw na ba mu demee ba dara desul lu dut lap mu delluwaat ci boromam ñaan ko sunu borom faalewu ko lu tax parce que ba dellu ci yàlla wéral pas-pas jotee daa bañ mu bàyyi nag ba mbir mi jeex takk nga xam ni mbugal mee yegg si mu naan amantu billadi amana bi ni ñu ne ko al aana xanaa tey xanaa tey sa ngëm gi lu mu wér wér wér du la jariñ mu ni moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñaan ak yonent yàlla yunus googa muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin nit du nekk ci jafe-jafe mukk ñaan ko lu dul sunu borom dana ko may kon daal yégal ni amul lu la mën a dimbali ci say mbir lu mel ni wéetal yàlla amul lu la mën a indil musiba lu mel ni bokkaale sunu borom ndax dalay yàqal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale nit ki bu nekkee ci jafe-jafe wax laa ilaha illa allahu alazim alxalim laa ilaha illa allahu rabu alarsh alazim laa ilaha illa allahu rabu alsamawati wa rabu alard wa rabu alarsh alkarim wala laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin wala allahu rabbi la ushriku bihi ahada wala allahu rabbi la ushriku bihi shay'a yii yépp ay xeeti ñaan la yoo xam ne ku ne ci jafe-jafe boo ko ñaanee sunu borom xitili la waaye boo xoolee li ñaan bi làmboo lépp mooy wéetal sunu borom ak nangul ko lam moom ak kennal ko ca nag nga xam ni kat sa xol bi bëgg-bëgg àddina yeeg ah sa baay sa yaay sa jëkkër sa jabar sa mag sa rak sa doom kenn ku ca nekk nag wax dëgg yàlla di nga ko bëgg nag waaye boo nattee bëgg nga bëgg yàlla nag moom moo gën a rëy ndax walladina amanu ashaddu xubban lillah gis nga ñi gëm yàlla moom bëgg gi ñu bëgg yàlla moo gën a tar bëgg ko keneen di bëgg keneen wala bëgg ko leneen di bëgg leneen ñetteel bi mooy fexe nag ragal yàlla subhanahu wa taala xam ngeen ni jàng ngeen ci alquran sunu borom ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra suñu borom nee na képp ku ragal yàlla xat-xat yi mu nekk léegi suñu borom wax ko wan ko porox ndoll sum jaar ba génn allahu akbar dafa mel da ngaa nekk ci xat-xat amoo foo jaar ragal yàlla génn na e kaay kaay nga ñëw mun la jaara ci ruq bi rek nga jaar ci ruq boobu génn suñu borom andil ko wërsëg woo xam ni foogud woon sax wërsëg wa dikkal ko wa man yattaqi llaha képp ku ragal suñu borom suñu borom ni yaj'al lahu min amrihi yusra ay mbiram li jafe woon sunu borom day commencé di ko yombal nag léegi ah ci mbiru àddina ak ci mbiru liggéey ak ci ci mbiru njàng maak lu mu mën a doon sunu borom defal ko ak yomb yomb Abdullah ibn Mas'ud nee na aay ji gën a matale ci alquran mooy inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sunu borom mi ngi digle na nu maandu te nañu rafetal waaye nee na aay ji ëpp yaakaar ci alquran mooy wa man yattaqi allaha yaj'al lahu makhraja aaya jooju lu am yaakaar la mooy ku am ragal yàlla rek jafe-jafe bi nga nekk ak lu mu mën a doon nag bu ma nee jafe-jafe mooy ku nekk yaa xam sa bopp la nga yor ci jafe-jafe nu mu toll rek yëgal ni dugg na ci aaya ji suñu borom dara la ko teggil kon gaaw na lool moom ragal suñu borom ci indil la ay jafe-jafe histoire ñu njëkk ña boo ci gisee da ngay gis yu bari yoo xam ni nit ki ba mu tolloo ca xat-xat ya ragal yàlla moo ko ca génne ñeenteel bi mooy rafet njort ci yàlla subhanahu wa taala te xam ni yow ñi nga jàpp ni ñoo la bëgg dëgg la ñooñu bëgg nañ la waaye comparé leen ñoog yàlla kan moo la gën a bëgg xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fii ayi suratin ma sha'a rakkabaka te kenn fekkewu moo la bind melal la ni nga mel nga neex a xool defu la mbaam defu la fas defu la rab defu la garab defu la suuf defu la asamaan ah waaye mu def la nit nga mel ni nga mel am ñoo xam ne suñu borom teg na leen natt yoo xam ne yow bu la daloon foo jëm ci àddina yow ndax yow boo leen xoolee rek la ngay njëkk xalaat mooy lii de man bu ma daloon sama àddina yàqu waaye yàlla tegu la ko léegi ñi la yërëm yaa ñoog yàlla ku la gën a yërëm ndax bala yàlla yërëm ñooñu sax amuñu woon faf kon rafetal njort ci sa borom xam ni lii mu la teg li tax mu teg la ko moo ko xam delluwaatal ca moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax Abdullah ibn Abbas ni ko ihfadillaha tajidhu amaamak del wattu yàlla di ko bàyyi xel foo toll rek sunu borom a ngi sa kanam lu nar a agsi rek sunu borom xitili la ca taaraf ila allahi fi raxaai yaarafka fi shidda wala yaarifka fi shidda del bàyyi xel sa borom di rafetal sa jëflanteeg moom ci jamono yi ba muy neex su ko defee saa bu naqaree rek suñu borom indi yomb yomb ya gaaw muy na nga xam ni lépp lu ni rës ci sa kaw kenn mënu ci dara mënta woon a bañ a yegsi ndax suñu borom dogal na waaye na nga xam ni lépp loo xam ni mucc nga ca suñu borom a dogaloon da nga cay mucc rek kenn xittali wala ku dul suñu borom te nga xam ni ndimbal mi ngi ànd ak muñ bala laa suñu borom dimbale da ngay muñ suñu borom du fekk ku dimbali ku ku muñut mu di ko dimbali moom la olof yi wax dëbbale na ca fekk say kuur te nga xam ni jafeñ-jafeñ bu nekk nag balaa yombale ñëw jafeñ-jafeñ jiitu ko teyit nag innama al usri yusran balaa yombale ñëw jafe-jafe da koo jiitu ibnu rajab alhanbali borom xam-xam bu mag la nee na wax gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni faw jafe-jafe ñëw natt doog cay topp nattu nattu ñëw yombal doog ciy topp nee na la cay tegtale mooy waxi sunu borom wa huwa alladi yunazzilu algaytha min baadi ma qanatu wa yansuru rahmata sunu borom kat mooy ki nga xam ne mooy wàcce taw bi ginnaaw boo xam ne dem nañ ba baykat yi jàpp ni nawetam ren nar ta baax nga xam ne yaakaar yëpp dañ na léegi ci yàlla rek la des sunu borom mu ni ma wàcce taw bi wa yansuru rahmatahu wasaare sama yërmaande kon loolu yërmande ju rëy la soo gisee ci taw ba léegi sunu borom subhanahu wa taala day wane jaam yi bu ñu ñàkkee yaakaar rek nga xam ni moom day daal di indi ndimbalam nga xam ni moom rek moo man loolu gis ngeen ko ci suuratu ruum fa sunu borom di waxee ci mbirum taw bu wàccee taw beeg nam koy defalee mu ni fa ida asaaba bihi man yashaau min ibaadi ida hum yastabshiruun wa in kaanu min qabli an yunazzala alayhim min qablihi la mublisin fandur ila athaari rahmatillah sunu borom ni taw bi day wàcc yàlla mosal ci ñam ca soob mu tooyal seeni suuf ba mu tooy ña ca des sunu borom joxu leen taw bu ko defee ñam jox taw ñu kontaan di bég te moo ne de ay fan ci ginnaaw rek dañoo ñàkkoon yaakaar ba jàpp ni ren moom dara du baax sunu borom ni fandur xoolal rek ila athaari rahmatillah jeexintal yërmande yàlla ëndaale kayfa yuxyi al arda baada mawtiha ni mu fekkee suuf si mu dee ba ñëpp ñàkk yaakaar sunu borom daal di wàcc tawam yërmande ñëw sunu borom bi ngi wax ni xatta ida stayasa rusulu wa dannu annahum qad kudibu jaahum nasruna yonent yàlla yi nga xam ni kuy gëm yàlla seen gëm yàlla moo gën a kawe sunu borom ni ñoom yonent yi bañ demee ba commencé découragé découragé ñu ñàkk yaakaar ah nga xam ni fépp fuy bunt rek fëgg nañ ko affaire yi jafe ñu dem ba jàpp ni sax nit ñi moom dootuñ gëmati sunu borom mu ni ca la sama ndimbal daal di yegg si nag bu ko defee nag affaire bi diggante xef ak xëppi rek affaire bi ne tay ci sa kanam ba àgg ci xatta yaqula rasulu walladina amanu maahu mata nasrullah sunu borom mu ni ala inna nasrullahi qarib yonent yàlla yi sax nag wala yonent bi sax ak ñi gëm yàlla commencé na waaw xanaa ndimbali yàlla moom dootul ñëwati sunu borom mu ni ohun kay ndimbali jege si na sax moom nag abu darda dañ koo laaj nee na dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxi suñu borom ji kulla yawmin huwa fi sha'n suñu borom de bis bu ne rek mi ngi ci ay yëf-yëfaan muy ah waaw mi ngi ci ay yëf-yëfaan kay ndax moom am na ñu tuub ma nga leen di jéggal am na ñu ne ci jafe-jafe ma nga leen di xittali ñii dañoo war a folleeku ñee dañoo war a falu kii war naa am jëkkër kii war naa am jabar kii war naa am alal kii ren la alalam wala yàqu kii ren la war a dem màkk kii ren la war a am liggéey yooyu yëpp benn bu ca nekk yëf yëfaan la yoo xam ni kenn ki koy dogal sunu borom kese la moo tax mu ne kulla yawmin huwa fii sha'n bis bu nekk rek sunu borom mi ngi ci ay yëf yëfaan abi hurayra mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna almaunata min allahi azza wa jalla tati alabda ala qadri almu'na ndimbal bu yegsi kem lu tol ni li nga sonn lu la sunu borom di dimbalee wa inna sabra yati ala qadri albala moo tax kem lu tolloog natt bi ci la jullit bi di muñee rek fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran Abdullah ibn Mas'ud nee na gis nga jafe-jafe bu doon bërastiku di barastiku ba ni dagaj ci biir am pax yomb yomb dana barastiku ba ni dagaj ca biir fekk ko fa ndax noonu la ko sunu borom dogalee inna ma al usri yusran yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo seetloo ci li mu jàngale jafe-jafe yonent yi jaaroon yaakaar sunu borom tax na sunu borom xettali leen yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku nooxin ba ko nit ñëwee ci weddee na ko sunu borom xettalee ca nitam ba taw ba ñëw ñoo ngi fàttaliku Ibrahima bañ ko jëlee tàbbal ko ci sawara sa na ko sunu borom xettilee noo ngi fàttaliku Ismaayila bañ ko tëralee di ko waaj a rendi na ko sunu borom xettilee noo ngi fàttaliku Muusa ba mu demee ba ca géej ga dara desul lu dul lapp mbaa Firawna dab leen na ko sunu borom xettilee mu jàll noo ngi fàttaliku Ayyuba ak feebaram ba na ko sunu borom xettilee noo ngi fàttaliku Yunus ak jën wa ba mu ko wane na ko sunu borom xettilee defe naa ñoo ngi fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Badar ca Uhud ca Xandaq ca Xunayn xeex yi nga xam ne xeex nañ ko benn bu ci nekk ànd ak suñu borom xettile loolu nit ñi dañ koo xamul wala dañ koo fàtte bu fekkee xamuñu ko benn bu ci nekk jarnam njàng su fekkee dañ koo fàtte ñu dellu si waat seen xel yi kenn ku ne yëg ne gis nga li la dal lu ko gën a rëy dal na sax ku dul ab yonent faf yàlla teggil ko ko waxuma la ak ab yonent te it bokk na ci kiimaani suñu borom yi mooy léeg-léeg suñu borom da ngay nekk ci jafe-jafe nga di ko ñaan mu mel ni ñaan gi da koo nanguwut ndax dalay bàyyi ba nga sonn mu doog lay xikkili ndax xam nga doomu aadama bu nekkee ci jafe-jafe day gën a dellu xelam ci yàlla di gën a ñaan yàlla gën a dolli wàkkiiloom ci yàlla mooy yàlla sax da nga koy commencé mooy te ndax xelam ci yàlla rek lay kon lépp lu muy tere rek koy gën a bàyyi xel te loolu ngay def ak jaamu yàlla la moo tax yéex gi suñu borom di yéex indi ndimbal yow dafa laa arrangé sax te xamoo ko ndax day gën a tax nga yokkuwaat ak dellu ci suñu borom moo tax Fudayl ibn al-Ayyad nee na gis nga boo découragé woon ci nit ñi nga ni man bëgguma soxlaal kenn lenn te affaire bi dëggu ci sa xol la nga waroon a soxlaal nit ñi lépp yàlla dana la ko indil subhanahu wa taala allahu akbar soxlaal lu ma kenn lenn te loolu dëggu ci wax ji mooy li nga waroon di soxlaal nit ñi saa bu bu aajowoo rek suñu borom da koy daal di indi mu yegg si ci yow kon dellu gi ngay dellu ci suñu borom di ko ñaan di xitiliku ci moom loola yëgal ni ak jaamu yàlla la ndax suñu borom kat suñu borom kat ña ña ko gën a jege bokk na ci mooy ñi nga xam ne seen xol yi dafa toj ci bëgg yàlla imaamu shafii doon na wax ni wala rubba nazilatin yadiqu laha alfata ra'an wa inda allahi minha almaxraju booqat falamma stahkamat xalaqaatuha furijat wa kuntu adunnuha la tufraju nee na aka bari ay xat-xat yoo xam ne nit day jekki-jekki rek mu ni rës ci kawam bett la lool nga xëen xëeni gestu ndeyjoor càmmoñ mu ni amul fenn nag fu xittiliku ko mën a bàyyeekoo fu dul ci suñu borom affaire bi dem nag ba wër la ndomba boo gestoo ndeyjoor gestu càmmoñ xool ca kanam solution amul maanaam jafe-jafe rekk la wër nga jàpp ne moom fi ne sayee yàqule naa mu ni ba ngay daan yaakaar ne yàqule nga rek furi jat ca la ko suñu borom daal di dikk yëkkati mu demaat ndax moo ko fi indi mu ne wa kuntu adunnuha la tufraju nga xam ne demoon naa sax ba yaakaar lii moom fi ne naa toog xaar dee lii dootul dañati moo tax benn borom xam-xam di wax ni muñal te nga xam ni muñ day moo gën ci lu nit kiy def ndax saalit fajut dara te it doo ci am tiyaaba nee na bariwaa na foo xam ni jafe-jafe ñëw na lu dul yomb ma nga ca gannaawam topp ca nee na bariwaa na foo xamante ni saalit nga te saalit jëriñu la dara moo tax benn borom xam-xam bu mag day wax ni asa ma tara alla taduuma wa an tara lahu farajan mimma alaxa bihi dahru mu ni asa farajun yati bihi allahu innahu lahu fi kulli yawmin fi xaliqatihi amrun ida laaxa xusrun farju yusran fa innahu qada allahu inna al usra yatbacuhu al yusru nee na amaan na lii ngay gis ci ay jafe-jafe sax day du sax saxut dafa ñëw rek pour ab diir yow yaa xamul ñaata fan la problème yi nar a am waaye fan yi mu war a am dafa ganasi ku ganasi ba say fan jeexee da ngay ñibbi mu ni jafe-jafe bi dalaa ganasi rek ba fanam yi jeexee mu dem yoonam nee na amaan na xittalik sunu borom mi ngi ci ginnaawam maanaam jafe-jafe bi daa gane si day dem léegi xittalik gi ñëw ndax sunu borom moom bis bu nekk rek mi ngi ci ay mbir ndax kulla yawmin huwa fi sha'n mu ni ida laaxa usrun farju yusran fa innahu saa bu mittee ba ni këtt ni jonn jafe-jafe yi métti keroog na nga gën a am courage yëg ni ndimbal maa ngi ñëw ndax qadallaahu sunu borom dogal na ni inna al yusra inna al usra jafe-jafe bi kat yatba'uhu yusrun yomb-yomb dong moo ca mën a topp dara du ko topp lu dul loolu juróomeel bi mooy fexe ba sa digganteeg sa borom nga rataxal ko doo xaar ba jafe-jafe yi ñëw ngay commencé di dellu ci yàlla déedéet da ngay dellu ci yàlla balaa jafe-jafe di ñëw. gis ngeen xadis bi sànq bi mu ni na ngay fexe di dellu ci sa borom ci jamono yomb-yomb ngir jafe-jafe sunu borom mën laa xettali benn waay bu ñuy wax ahmad ibn asim al antaki nee na man de bëgguma faatu mukk lu dul damaa xam yàlla mu ni xam gi nag jubluma ci xam gi ngeen xam xam ni mooy yàlla ma nga ci asamaan gi mooy wërsëgal mu ni jubluma ci góog mu ni góog romb naa ko man waaye xam gi ma xam bëgg mooy xam goo xam ni danaa koy jaamu te benn jafe-jafe amut ndax kontaan gi ma kontaan ci nekk gi nekk sama borom loola mooy xam nga tax ñuy wax Daxaak ibn Qays nee na dee leen tudd yàlla di ko fàttaliku di ko bégee ci jamono jamuy neex su ko defee bu naqaree sunu borom tamit nag dimbali la mu ni gis ngeen Yunus ba muy neex daa wékku woon ci boromam di ko fàttaliku di ko tudd di ko wéttalikoo moo tax ba mu wéetee rek kam doon wéttalikoo ñëw daal di koy wéttali ba mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mbir yi daal di sotti mu ne moo tax it gis ngeen Firawna ba mu tolloo ca digg jafe-jafe ya mu ni moo ne lam man ci pas-pas setal ko defar na ko lam man ci dellu yàlla def na ko waaye jëriñu ko lu tax mooy daw ca ba ngay ami tànk bay wees na mbuus mooy ba mu nekkee ca biir pale ba waroon a xalaat yàlla defu ko kon ndekete léeg-léeg yow mën ngaa toll ci jafe-jafe ngay sonn di ñaan di ñaan suñu borom du la faale lu ko waral mooy ba nga waree ñaan ak a def ay mbir defoo ko kon tey jii sa ñaan gi intérêt tax nga di ko def maanaam mi ngi mel ni rek su doon ci misaal doomu aadama yi te walillahi masalul aala ah waajoo xamante ni tey ah faalewu la yëgu la du la romb sax nuyu la xëy xëy am benn problème commencé ñëw di suba boo amee fulla doo ko faale yewet lu tax ndax moom da ngay xam ni kii intérêt ko indi ci yow sunu borom nag noonu la lay def subhanahu wa ta'ala juróom-benneel bi mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam day mbokk yi julli ci moom lu rëy la day kafaaray bàkkaar day dindi ay problème benn waay bu ñuy wax ubay ibn kaab ah nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de damaa bëgg di bari lu may julli ci yow su su may ñaan waaw su may ñaan lu tol nan laay julli ci yow su ma xaajee ñaan gi ñeenti xaaj ñeenteel ba naa ko julli ci yow mu ne ko waa baax na waaye boo doolee mu gën mu ne kon su ma ko xaajee ñaari xaaj genn wàll ga laay julli ci yow mu ne ko baax na waaye soo ko defee soo ko doolee mu gën mu ni bokk su ma ko xaajee ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ma julli ko ci yow mu ne ko boo ko defee boo doolee mu baax mu ne kon far naa julli ci yow lépp moom mu jeex tàkk mu ne ko boo defee loolu day suñu par borom problème yi nga am yépp dana la ci xettali waaye bàkkaar yi nga am suñu borom dana la ko bombardé faral la ko allahu akbar julli ci yonent bi xool ni mu simple ak nit ki nangami junni yoon boo ko ci defoon sax xeeb ko te nga xam ni loola maanaam tuuti na lool par rapport ak àq bi yonent bi am ci yow sallallahu alayhi wa sallam ndax fanaane naa jooy ba fajar jot ngir yëm yërmande ju mu am ci yow ak man ak xeet wi ngir bëgg rek suñu borom bañ leen a mbugal jàpp naa ni kooka kon lépp loo def mu jëm ca moom rek loola lu xeebu la lu tuuti la juróom-ñaareel mooy muñ ak di bari looy julli jullit day muñ nit ki day tamal boppam muñ waaye jullit boo xam ne du muñ dara kenn du la xusi kenn du la yàqal kenn du jël sa yëf kenn du la tooñ loolu mënta nekk faw ñu lay tooñ faw ngay am lu la metti faw ñu lay wax lu la naqari faw ngay am léeg-léeg nga ñàkk faw ngay feebar faw ngay am ay naqari àddina yooyu faw mu am su amee normalement lay wane ni muñ nga am na yoo xam ne war naa mën a am ba jàll te kenn du ko yëg lu tax dëgg la xëy na buñ ko yëg bu dee laaj ngay laaj ab borom xam-xam wala nit ko am xel nga woo ko di diisoog moom pour solution nga yem ca waaye nag jàmbat nga xam ne lu la dal addina bi yëpp xam ko jullit du mel noonu daam yoo xam ne da nga koy denc ci sa poosu biir yaag sa borom rek nga muñ ko nga xam ne allaaxira boo fekkee yiw kat doo ko réccu de waaye ñun ñii ñu ngi foog ni ñu ngi muñ muñuñ de muñuñ de ñun kenn duñu xoos kenn duñu joggi kenn duñu yàqal kenn du jël suñu yëf lu la waay wax nga mer lu la waay wax nga fuñ fuñi bëgg a tukkal àddina bi boo feebaree kenn dootu déggati yooyu yépp ay mbir la yu lay wan ni muñoo moo taxit muñoo mooy amoo tuyaaba sunu borom ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla istainu dee leen dimbali ko bi sabri ci muñ wasalaa ak julli julli moom xam nga ni farata yi taxut may wax ndax farata yi moom romb nañ loolu sañoo koo bañ a def kon buñ nee julli la tax ñuy wax mooy naafila ya farata yi sañoo koo bañ sax na ñeent avant tisbaar wala ñaar bokk sax na ñeent après tisbaar wala ñaar bokk sax na ñeent avant takkusaan wala ñaar bokk sax na ñaar avant timis sax na ñaar après timis sax na ñaar après gée ak ñaari fajar safaak witr yii ay naafil yoo xam ne lu mu gàtt gàtt gàtt plus naafi lay guddiye boo mënta respecté yépp it boobu nga am yoo ca respecté ndax yëgal ne àllaaxira kat buñ defee première examen bi première saison buñ defee examen nga jàll moom d'office nga yam nga tàbbi àjjana waaye buñ defee première examen bi vérifier say julli baaxul da ngay jàll oral oral bi dañ naan nañ ko defal test ci naafile yi mbokk yi kuñ may chance nga jaar oral ñu xool say naafile fekkuñ fa dara yow mbaa di nga baax le kon nag faw nga am ay quelques points ci naafile yi ngir boo jàllee oral bi mën laa dimbali nga tàbbi àjjana yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam saa bu mbir ne kët di jonn rek jàpp na kàbbaar julli xamal ni muñit nag fas la woo xam ni ku ko war moo gën a gaaw te du la wangentu jaasi la ju ñaw joo xam ne jarul daas booy dóor muy dagg soldaar la boo xam ne xamut daw moom muñ te it néeg la boo xam ne ku ci dugg da ngay rëcc muñ day dimbali ku gëm yàlla muñ amut benn solution booy jël ginnaaw ñaan bu jafe-jafe ñëwee lu dul da ngay muñ gis nga muñ ci jafe-jafe mi ngi mel ni bopp ni mel ci yaram mën nañoo dagg yeneen cër di doo dee waaye bopp moom buñ ko daggee moom nga jaaree fa naax saay juróom-ñetteel bi mooy fexe jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yàlla yi def leen ay référence ah yonent bi laaj nañ ko kan moo gën a metti ay nattu ci kaw suuf mu ne yonent yàlla yi ñoo gën a metti nattu ñi ca topp topp ca nit ñu baax ña topp ca nit ñu baax ña topp ca kenn ku ca nekk nag yëgal ni fa nga toll ci yàlla noonu lañ lay nattoo moo tax la nga gis kenn nit nag ay man di diw dama ko yërëm diw nangam fekk yow jot a yërëm kooku moo la gën fuuf ndax nit ki kemtalaay problème yi mu am day wane kemtalaay cër bi mu am ci yàlla hé diw di man ni ma ko yërëmee diw di man dama ko nangam sax nangam fekk yow mi ko yërëm yow lañ waroon a yërëm yow ndax moom problème yi mu am mandarga la muy wane ni moom cër la bu rëy la am ci yàlla subhanahu wa taala ndax nit ki nu mu gën a am cër ci yàlla rek nattoom su dikkee di gën a diis yow nag amoo nattu nga yërëmaate fekk yow mi amul nattu lañ waroon a yërëm ndax yonent bi nee na nit ki dana du dañ di am ay natt nattu yi di metti yi teggali ko teggali ko ba xëy faatu ne day dem ba jéego yi muy mujjee jéego ci kaw suuf di faatu benn bàkkaar dootu ko topp maanaam kayit bi mu yóbbaale àllaaxira moom bàkkaar yi ci nekk yépp natt yu fomp na ko fekk yaa ngi ko doon yërëm ndekete yow lañu war a yërëm kon xool yonent yi alayhim salaam seen natt yu metti ya yonent boo jël rek bu ma du ma ci du ma ci jaar ndax waxtu wi waaye yonent boo jël yaa ngi ngeen a dégg histoire am ak natt yam amoon juróom-ñeenteel mooy di fàttaliku dee àddina boo xam ne ñaari fan nga fi am ñetteel ba nga feebar ñeenteel ba nga dee jàpp naa ne yenn yi xaju fi góor góorlu rafetal ndax ndàngami at yi nga am ndax dina mat juróom fukki at wóoru la te fas yéene ngaa tëdd ci suuf si ay juróomi téeméeri at juróom benn ti dana ko sax nag laay wax nag moom ndax mën ngaa tëdd ci suuf sax junni at yàllaa xam junni at xam nga ne boo ko bëggee comparé sa juróom fukk yi nga dund ah xam ngeen ni neex neexi juróom fukk kenn du ko yàqee ah jafe-jafe yàlla nar a xaar ci junni at yoo nar a tëdd yow kese amul ku lay xittali amul koy wéttali kon loolu boo ko xalaatee jàpp na ne sa problème bii da ngay xam du dara du dara du tus aw xiin la woon rek fii nga taxam yàgg rek ñu ni moo xiin wi di dem na naaj wi ñëw na affaire bi daal di jeex di bari looy jéggalu sa borom kenn ci magi salaf yi nee na jégg alquran de mi ngi ñuy jubbanti di ñu wan ni seen jàngoroo ngi nii lu la dal ñu ni da ngaa siburu nga ne ah dama sibiru ñu ni waaw waaw lu koy faj ñu ni garab gii boo ko jëlee naan nga wér ci kàttanu suñu borom mu ni alquran wan na la dangaa feebar ba pare waxal lu lay faj ñu ne lan mu ni istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara jéggalu leen seen borom ndax ku mën a bàyyi la gis nga bu ngeen ko defee yursili samaa alaykum midraaran taw bi ñëw kon naataange ñëw bekkoor dem wa yumditkum bi amwaalin wa baniin suñu borom may la wërsëg ak ay doom wa yaj'al lakum jannaat may leen tool yi naat way jaalakum anhaaran dex yi daal di baax jën yi am ci géej gi ila axirihi yonent yàlla bi nee na képp ku bari loo jéggalu sunu borom jafe-jafe boo nekk rek sunu borom dana la xittili da musiba boo nekk rek sunu borom daal day wërsëgal génn la ci. kon jafe-jafe sax nit ki di jéggalu sunu borom dafay waral sax sunu borom baal ko ay bàkkaaram waaye da koy kattanal sax ci ay topp yàllaam moo tax yonent yàlla bi ni texee da ñeel na ku dem ba àllaaxira ñu jox ko fooyi jëfa mu fekk fa jóogi jéggalu yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay bàkkaarum xamoo num toll kon nag li ngay jéggalu waroo mën a xam num toll fukkeel beeg benn mooy booy ñaan ngay toroxlu jàpp na de may ma yow loolu koo respecté doo ko ko wax ba ma mënee nga may ko soo mënul nga bàyyi ko wala nga taxaw fële tàllal sa taxaw tàllal sa mel ni ku bëggul li ngay ñaan affaire ñàkk teegi ni dox sa digganteeg nit xam nga ni yàlla kon bu doon moom ngay jëflanteel kon noo war a mel booy ñaan keroog noo gën a sell sa njàpp maag sa toogaay baag na nga tàllalee say loxoog wàcce say bët tey wax ndànk oyoflu toroxal sa bopp ah wane ni man maa ngi nii maay ku lott ki maay ku tële ki aw ma mënuma soo ma xëccaliwut soo ma dimbaliwut damay xal ko damay sànk waneeg doye di goo xam ni sa yërëmtalu googu suñu borom bu la ca xoolee sax mën na laa yërëm moo tax suñu borom ne am ma yu jibul mudtarra ida daa ki mel nii toroxloo nii kan ngeen yaakaar ni moo koy nangul bu ñaanee ku dul suñu borom wa yakshifu suu'a suñu borom daal di koy fangal musiba yi ko doon xaar ku dul suñu borom moo tax Ibn al-Khayyim nee na bokk na ci li gën a mën a dimbali nit ki buy ñaan mu toroxal xolam toroxlu ci jëmmam yaakaar yàlla bàyyi lu xaram bàyyi def lu araam te it am yar ci ni muy ñaanee mu ne yooyu yëpp toroxlu googu ak la ngay wax ah yooyu day tax suñu borom may la ñaan nag ñetti mbir lay doon da ngay ñaan ñaan bi ñaan bi porté dal yéeg ci asamaan si dajeeg nattu ba rek fël ko mu daanu mooy ñaan bu nangu moom ñaan léegi mu nangu léegi natt baa ngi jóge ci asamaan si ñëw nga tàllal say loxo ñaan ñaan bi yéeg rek fekk natt bi ci diggante asamaan rek fel mu daanu dootul yegg si ci sa kaw mi ngi mel ni xeer wu la tiimoo ne di waaj a wadd ñaan bi fel ko wa illaa nga ñaan natt bi yéeg ñaan bi yéeg ba ca kaw xëccanteeg natt bi xëccanteeg natt bi rek natt bi fel ko mu daanu lu waral loolu parce que da ngay lekk lu araam moo tax bi nga ñaanee natt bee man ñaan bi lu waral loolu parce que da ngaa yaree di ku ni nga doon ñaanee kenn du ñaanee noonu lu waral loolu parce que li ngay ñaan fullaaloo ko koo fullaalul mu bañ laa fullaal gis nga kon ñaan bi day yéeg ba ca kaw nattu bi fel ko bu ko defee nattu bi yegg si sa kaw nga naan ñaan naa fekk fekk li teye mu nangu ci yow la wa illaa ñaan bi sax mel na nam war a mel waaye doole ji bëriwut lool mu yéeg ba ci kasa ansima ni nikk nattu bi ñoom ñaar ñuy bërbëri foofu du yegg si moom mënu koo fel mënu koo daaneel waaye nag dina ko téye ba du yegg si moom ñett yi doom nga mën a am ci ñaan bi nga ñaan moo tax yonent bi di wax ni ñaan dana jariñ ci li musiba ji jot a wadd ba pare ak musiba ji nga xamante ni waddagut ah te it ñaan dina yéeg ba ca asamaan si di xëccanteeg musiba ba yowmal qiyaam bu ko defee du yegg si ci sa kaw fukkeel beeg benn mooy di wa wéeru ci yàlla ci sa jëf yu baax yoo def loolu nag misaal bu gàtt laa ciy joxe mooy ah yow sunu borom diw sàngam di keroog ba ma koy dimbali yow yàlla xam nga ni ba ma koy def yow rek yaa taxoon bañ naa ko ba yére ba ma ko mayoon sax ci mbuus laa ko dugal ndax bañ ko ko gis bañ naa ko ba dama kaa woo ba mu ñëw man ak moom kese bañ naa ko ba dama ne ko bëgguma sax kenn yëg ko yow yàlla xam nga ni lii yaa taxaw nga di ko def nit ku nekk nag dofoo xam nga la tax yàlla nga def ak la taxul. wala beneen misaal boo mën a jël yàlla su fekkee lii ba ma koy def yow rek yaa taxoon maa ngi lay ñaan yàlla nag ma xëccali ci tolof tolof ndax fi ne aajowoon naa sam dimbal da nga koy def nga génn fii rek affaire yi daal di sotti kon. yii ay yëf yëfaan la yoo xam ne soo ko dajalee lim bu rëy rëy rëy mën nañ ko ci indi ci ay misaal misaal bi ma koy joxee pour jeexal gis ngeen ñett ñooña nga xam ne yonent bi nettali na leen sallallahu alayhi wasallam ñu àndoon di dem ci àll ba mu yàgg ñu dégg asamaan si na gërëng rëng rëng rëng rëng xiin ñuul kuk ñu ne ah asamaan si ni mel tey taw bi nar naa foor nañ xool fuñ dugg ba duñ tooy ñu seen benn pax bu nekk ci benn montagne ñu ne nañ dem dugg foofa bu ko defee taw bi duñu laal ñu dugg ca biir montagne ba rek benn xeer fàqee ca kaw rek toj rek ni tay ci bunt bi fatt ko maanaam mu nekkoon bunt bu ndaw comme pax mu mel nii rek xeer bi ñëw rek fatt ko nga xam ne xeer bi rëy na rëy goo xam ni ñoom ñett ñëpp suñ ko buuxoon duñ ko mën a ubbi bu ñu yuuxoo dinañ leen dégg déedéet kan moo leen di romb foofu kenn ku leen di yëkkatal xeer bi kenn lu fi sës toqaar bee yaakaar naa ne jafe-jafe bi nga toll natt ko nga xool par rapport bi koo xam ne yow amul benn solution yoroo téléphone boo wootee ndax téléphone amul woon boo yuuxoo kenn du la dégg fa nga dem montagne la kenn du fa jaar yoroo loo lekk yoroo loo naan fi ne moom amul solution maanaam lan mooy seen solution tëdd xaar dee kese defe naa problème boo mën a indi bi yëkku gën a garaaw léegi lan mooy solution amul solution lu dul xaar dee benn waay mu ne am naa solution kay mooy lan mooy gis nga nit ki jaamu yàlla gi mu def te mu sell te yàlla tax bu ci sukkandikoo suñu borom xeet li ku nekk seetal xalaatal nga vérifier lan nga mas a def loo xam ne yàllaa taxoon nga ñaan ci kenn ki mu ne yàlla man de damaa amoon benn surga surga boo xam dafa naqari deret gaaw a xuloo gaaw a mer ba nga xam ni mu liggéey ba weer bi waaj a dee ma wax ak moom ñu xuloo mu bàyyi liggéey ba gedd salaire am foofa dem yoonam gisuma ko weer wi dee ma yëkkati li ma ko war a fayee aw ma ku ma ko jox xanaa foofu mën na kaa lekk mu jeex mu ne ah déedéet du ma ko lekk ndax yëfi jàmbur la nee na ma jël ko dem ca marché ba jënd ca benn xar wala bëy daal di koy indi yar ko ci kër gi xar ma bëy bi commencé di jur di jur di jur ba affaire bi nekk gétt bu rëy ay xar yu bari nee na ma toog benn bis rek waa ja daal di janeet sama kanam ni ma xàmmee nga ma ma ne ko waaw xàmmee naa la kay yow man la kan mu ne ko yow yaay sama surga ba dawoon mu ne yaa ngi fàttali ko weer wa ba muy dee fayoo ma su doon misaal ñu ne juróomi junni mu ne ko fayoo ma juróomi junni kon nu mu waroon a def xanaa daawoon yëkkati juróomi junni fay ko mu jeex ndax alalam la waaye defut loolu nu mu def dane ko sa juróomi junni yooyu moom laa jëloon jëndee ko benn xar mu jur gis nga lii lépp nga xam ni valeur million la lépp yaa ko moom mu ne ko yee bul ma ñaawal waaye jox ma sama salaire mu ne ko ah ñaawalu ma la de lii yaa ko moom ndax moo jur te lépp lim jur ci sa alal jëla kon jëlal mu ne yàlla ba may def loola xam nga ni loola moom yow rek yaa taxal ma di ko def ndax mënoon naa def neneen lu dul noonu fay ko salaire am mu jeex ndax yëgul ni affaire bi jur na su fekkee yaa taxal ma def ko yow suñu borom teeg ñoo xettali mu mel ni affaire bi daa am ku yëkkati montagne bi nii ñu ñu seen affaire bi di dan dan dandu ba boo ñëwee daanaka sa bopp bi da ciy xaw a mën a dugg rek waaye du xaj sax bu baax bopp bu xajut leneen du xaj waa ji man ne man jeexal naa keneen ki daal di jël mu ne yow sunu borom man de damaa amoon benn doomu bàjjen ma dem ñaan ko ñu may ma ko jabar ñu may ñu bañ ne duñ ma ko may ñu dem may ko keneen te fekk booba dama am alal lool ndaw si toog këram ba mu yàgg amul dépense fekk man maa am alal ci dëkk mu ñëw ci man daane ah man de fi ne damaa sonn te maa dimbali sama jëkkër amul dara te aw ma lu ma togg ca kër ga mu ne ko xanaa maa ak yow ñu ànd mooy yàlla rek buñ mooyee yàlla ma doog lay xittali mu ne ko loolu dee ma ko gënal daal di ñibbiwaat ndax booba ngëm gi fees na del mu toogaat ab diir affaire bi mettiwaat lool ndeysaan mu daal di ñëwaat mu ne ko la ma la waxoon mu ne ko mayit la ma la waxoon rek mu ne ko loolu dee ma ko gënal mu daal di ñibbiwaat te ñetteel ba nag ba muy ñëw nag fekk na yëf yi metti na ba mënatu koo muñ ndax ñàkk gi metti ndax xam ngeen ñàkk musiba la mën naa tax nit jaay ngorom jaay diineem mu daal di ñëw pour nangoom mooy yàlla ak moom nee na bi mu wéeteeg moom ca néeg ba rek xelam daal di dem ci yàlla subhaanahu wa taala ndaw si am lu mu ko wax xelam dem ci yàlla mu daal di gaaw tijji bunt bi génnaat daal di koy jox alal ni ko jógal fii demal sa yoon mu ne yàlla keroog ba may def loola xam nga ni amoon naa occasion mooy la waaye moyuma la ngir ragal sa mbugal su dee loola yaa taxoon xetti li ñu xeer wi ni tareet tege fële waaye ba léegi nag di nga mën a génn tuuti tuuti waaye doo mën a génn ba jeex mu ne man de saay bal jeex na keneen ki daal di jël mu ne yow sunu borom ma ne damaa amoon baay ak yaay saa bu ma mësaana sàmmi ca àll ba wëtti ba ñëw bu ma rattee ci soow mi samay doom ak man balaa ñoo reer mbaa ñu naan samay wayjur laay njëkk a jox ñu naan ndax sàmm sa ndigal ci àqi wayjur nee na benn bis damaa ñëw fekk leen ñoom ñu nelaw te bëgguma leen a yee sama waa kër ñi ngi jooy bëgg naan ci soow mi te nee naa leen balaa kenn naan baay ak yaay dañoo naan nee na falaa taxaw di leen xaar ñuy nelaw ma di leen xaar ñuy nelaw ba ginaar gi sab ca fajar ga sama waa kër ñaa ngi bëgg a dee xiif te nanguma leen jox ndax bëggumaa yee ñii te bëgguma ñu njëkk leen a naan su dee teggin yooyu ma defoon yow sunu borom yaa tax xetti li ñu xeer wa dal di yëkkatiku ba ca kaw ñu tege fële ñu daal di génn ñoom ñëpp jàpp naa ne loolu ku ko dégg te lii yonent moo ko nettali sallallahu alayhi wasallam da nga xam ni kon problème boo nekk biyee ko gën a rëy te ñii xitiliku woon nañ te la leen xitili moom mooy delluwaat ci suñu borom xaaj bu njëkk baa ngoog bu ngoonee ma àggale incha allah ñaareelu xaaj bi ñaareelu xaaj bi mooy nag ay misaal yu ñuy joxe ci yonent yàlla yi ak salafu saalih kenn ku ca nekk bis sàngam mas ngaa am natt bu mel nangam nga ñaanee nii suñu borom nangulee la nee ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy dégg wax seet li gën a rafet ñu jëfe ko wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi